Bassouma Bassouma Mbaré merci beaucoup la jeunesse ay jambar ngeen ci informatique l'organisation de la défense de Ousmane Sonko est imminente parce que pour la défense de Ousmane Sonko je vous avais parlé la fois passée de la conscience. Et maintenant, nous sommes sur l'incapacité de la conscience. Est-ce que la conscience peut être capable Et les temps là sont lourds, les temps sont durs. Actuellement, c'est dure La jeunesse e les anciens qui nous ont devancés. yéen waa magi Pastef pour revenir un peu en arrière souvenez-vous depuis 1914 avec Blaise Diagne le système est toujours là c'est ce même système qui a tué Lamine Sané en 1923 empoisonné un fils révolutionnaire de la Casamance ce même système a éliminé Victor Soumemba Diatta en 1948 par balle. Ce même système a éliminé Mamoudou Dia, ce même système a éliminé Omar Blondin Diop, ce même système a éliminé Cheikh Anta Diop. Raison pour laquelle c'est l'heure de l'organisation. Il faut une organisation, une grande organisation, une organisation consciente, une organisation qui va nous permettre de voir qu'est-ce que c'est que le passif. Le passif est devenu africain. Or là, le gouvernement sénégalais a dissous le passif et a pris ses responsabilités à travers les institutions, ce qui n'est pas normal. Une république et institutionnelle et non familiale. on passe sur l'incapacité de la conscience à résister. Maintenant, si on veut résister, il faut qu'on s'organise. Comment s'organiser Les avocats sont en ligne. Action numéro un, ça sera les avocats, parce que nous tous, on se, dit les avocats, les avocats, les Car c'est les institutions qui ont pris les décisions. Or, il y a certaines choses, ça regarde pas les avocats, c'est nous en tant que jeunesse. C'est vous en tant que peuple sénégalais que chacun prend ses responsabilités man loolu laa bëgg ñu toll gëm-gëm ak yaqiin affaire bi xeex moo koy faj cour suprême bu CEDEAO ñoom dem nañ fa c'est les institutions pour s'organiser il faut un raisonnement ak un raisonnement actif mooy psychologiquement actuellement psychologiquement actuellement psychologiquement ñun ñoo dominer combat bi moo tax ngeen gis waa Pastef non waa APR dof le raisonnement actif nous a permis à sonkoriser le pays à sonkoriser des concerts à sonkoriser Dakar à sonkoriser partout au Sénégal c'est le nom de Sonko qui sonne qui sommes, que le dispositif gouvernemental avec Sénéra Babacar Diagne pour wan leen système bi sot Ousmane Sonko nu mu soree baptême de presse on vous a mené benn baptême de presse boo xam ne dafa faux maanaam lii presse bi di leen waxtaan yëpp c'est pas le sujet ay diw candidat la diw tas nañu partam diw loolu on ñun xam nga luy suñu problème moom mooy Ousmane Sonko doon candidat Ousmane ko bokk ci parrainage Ousmane Sonko génn ci kaso bi par force xam nga lu war nekk suñu combat moment bi bu Macky Sall dëgëree bopp xeex ak moom yóbbu dëkk bi état de siège coup d'état am quitte à ce que élection du am 2024 xam nga lu war a nekk suñu soxla moment bi jàpp ma Marème Faye Sall fa la conscience toll xeex dem jëli ji Marème Faye Sall quel que soit le nombre de morts gis nga li mu Moustapha Diakhaté waxoon waxtu baa ngi doog a jot ñii dee daañu dee ñii gaañu gaañu ñoom ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi ak sëriñ bu leen faral luy conscience moment bii <coughs> mooy raisonnement actif bi pour lan ma ne raisonnement bi ñu ngi woon ci raisonnement passif naka sonkorisé stade yi ñu interdit nawetaan sonkorisé concert yi Paris ñu yóbbu booy garde vie vingt quatre heures loo sonkorisé ñu tëj ko ne ne du fi amee dàq nit ñi seeni poste pour la sonkorisation que c'était passif lan la ñuy bañ béy woy na muus di xewoon démb xewaat na tey loolu ñun dañ ko war a bañ li xewoon 61 61 la du ren li xew ci Cheikh Anta Diop ba ñu pikiir ko empoisonné ko du ren du 2023 maa bañ négatif sonkorisation bi il faut que ça devienne matériel loolooy raisonnement actif raisonné nañ ba tàyyi raisonné nañ façon raisonnement bu nekk mais gis nga ne bi ñu raisonné benn yoon Macky Sall dafa dellu ginnaaw ñu raisonné waat sëñ Mountakha dimbali ko ñu raisonné waat mu jël li ñu raisonné jiñ ñu ko ñu ñoo ko def crime léegi nag raisonnement bii di ñëw waratul am calcule bu ñu calculer bay woy muus mooy xamoon nañ ko wala yëgoon nañ ko ñu ngi rëccu ba moom Mamadou Dia ñu ngi rëccu ba tey ay Thomas Sankara ñu ngi rëccu ba tey Lumumba quand est-ce que l'Afrique cessera de regretter quand est-ce que on va arrêter de regretter ñun kañ la ñuy arrêter ci regretter rëccu ne ay waay bu diw falu woon bu diw falu woon bu diw déedéet ñun ñooy fal diw diw mënul fal boppam yàgg naa leen ko Sonko à lui seul il ne peut rien gagner c'est vous c'est nous qui devons gagner ce combat mais Sonko ak Pastef mënul gagner dara ndax si Cheikh dañ ko empoisonné dañ ko piqué hôpital principal Abdou Diouf Jean Collé kenn du wax lépp Ousmane Sonko bu ñu yéexee ni day génn hôpital mais day romb jam ñaaju di wéy Macky Sall dafa fas yéene dem ba jeex fu mu yem neex. ay naan leen nag gauche droite di xaar avocat yeeg décision de justice gars yi réew muy dox ci institution pour lan chaque jour ma ne leen république ci institution lay toog te Sénégal toogatul ci institution ci dëgg sa dëgg sa lañ toll te dëgg sa dëgg sa googee foog ñu appliquer ko Macky Sall li laay waru suul lii xeex mooy faj affaire bii lii ay carte du ko gérer lu loxo def mën loxo mën na ko dindi ci kaw loxo yi def yoruñu ay fetal wante loxo bi def bu yoree fetal demal dindi xool kan mooy gaañu xam nga fu mu yem moment bi yàq dafa jot lu waaye yàq na ko xeeb la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer Tunkara félicitations suba concert bañal nañ leen tey manifestation yéen waa parcelle Viviane organisel na leen suba manifestation boo leen demee ngeen sonkorisé léegi fépp la ñuy sonkorisé dootuñu bàyyi kenn ku jaaxlewul bay def lu la neex ñu jàppale la ñu nit manifester bu ñu bañalee suñu manifestation ñun Paris demee 13h ngir yàlla na fekk ñëpp dans le 93 à l'université ñoo waxtaan toog wax xoolante ci bët lépp jàll. xeex bi nag mbooloo moo koy def de ñaari loxo bu xeexee bu benn bi foqajee day foqaj par force kenn du basketee ñaari loxo kenn du kurpañee ñaari baaraam juróomi baaraam mooy xeex wax naa leen ko ñun Afrique moment bi ñun Afrique de l'Ouest NASA waxoon na ko Pa Mouchirit Samba Diallo waxoon na ko àdduna moo weng richesse wëlbatiku ñëw tuuri ci Sénégal système bi nangu ko fi bàyyi te système boobu tey dañ ko war a rendi xattit système bi tollootul ci fu ñu koy enlever wala dikki on doit éradiquer xam nga système bi bu ñu ko vaincre mën na ñëwaat ndax mën na xeexaat ñëw mais dañ ko war a vaincre ba pare gas ko suul rendi disperser ay jël bopp bi dem suuli fële jël loxo bi suul fële jël loxo bi suul fële fàtte système bi fàtte ñoom Mamadou Dia fàtte ñoom Senghor fàtte Abdou Diouf fàtte Abdoulaye Wade Macky Sall ñu rendi ndeyam fa la système bi toll. ci xeex lañu toll ku xeexul gore woo ku yaakaar ne wax bu neex mooy régler lii dangay ngay sa bopp Tiwaawan on passe événement bi dina am Macky Sall nag mu ngi ñibbisi dina ñu provoquer manifestation attentat bi ñu naan du am ak day am bu manifestation amaatee force de l'ordre bi bu ci benn bakkan rote si ñoom yéen population boo leen wàccee ci terrain bi biram Faye élément yi mu jiite nañu dee biram fay na dee wax day dëggu wax day dëggu est ce dégg ngeen ni code bi ma leen jox ni bu ñuy manifester xam nga faru leen ak force de l'ordre yi mais force de l'ordre yi encore une fois bu ci kenn amee bal bu mu recevoir rek ASP yeeg groupe Jérôme Bandiaky beeg ni ñëpp décédé ndoo sinon ñu kole leen motif tëj leen yéen ñëpp seen biir kër yi code lay waxaatee te kenn du ci mën dara fekk ñoom ñoo ko provoqué rey ay policiers rey gendarme pour wane carrément ne Ousmane Sonko terroriste la réunion aux Almadies hier décision Moustapha Diakhaté il était présent provocation bi mooy dinañ leen yóbbu ci déposé waat manifestation autorisé ba ci biir ñu génn ci bu ñu manifesté waat te puusuñu ba mu sës ñu tëj dëkk bi ràpp yóbbu ko couvre-feu bu ñu manifesté waat te puusuñu ba mu sës liy tooy ci Ousmane Sonko lay jóge bu ñu manifesté waat te puusuñu ba mu sës Sonko ne sera jamais candidat avec système li fi des mooy xeex rien que combat moo fi des dañu jëloon trêve ba après gàmmu gi mais de prochain bëgg manifester bañ manifester vendredi prochain bëgg manifester bañ manifester luñ ci góobee gar lu luñ ci góobee rek gar balaa ñoo sacrifier Ousmane Sonko na ku nekk jël say responsabilité Sonko kese mënul xeex pour sept million de sénégalais mënta nekk raisonnement actif lañ nekk de ci raisonnement actif laa leen dem leen xool ubbi ngeen xool yéen ku nekk te dëkk sa conscience nga xool yow sa raisonnement yow li nga def si combat bi yëpp ak fan la ko Macky Sall yóbbu léegi yow fan nga war a yóbbu combat bi tu dois pousser à l'extrémité wala da nga war a wala tu dois t'avouer vaincu est-ce que nous sommes vaincus c'est ça mon problème est-ce que on doit s'avouer vaincu Est-ce qu'on doit s'avouer vaincu Non. combat bi fa la tollu moment bi ñun Macky Sall mu am pression pas ñun amatuñu pression Sonko n'a rien à perdre il a à gagner mais rien à perdre c'est Macky Sall a déjà perdu sur le plan africain comme la France a perdu sur le plan africain donc carte gi leer na moment bi lenn rek a ci des dee doorante dóorante ba ne sip ñiy dee dee booy bu Sonko nekkul candidat je ne vous le cache de élection bu amee rek défaite la pour ñu ñëpp parrainage bu ñu ne parti Sonko du bokk défaite la pour ñun ñëpp ñu parrainé défaite la pour ñun ñëpp kenn du ko fi pare parrainé kenn du ko fi campagner kenn du ko fi élection te Ousmane Sonko bokkul. quitte à ce que ñu dem guerre civile kooku moom foog ku nekk jël ay responsabilités bëgg ngeen lekk bëgg ngeen ame time bëgg ngeen xawma la ndax lan mais on s'en fout de ça dëkk bi foog ñu éradiquer système bi tegaat beneen système bu bees jéem a développer suñu réew am suñu xaalisu bopp gérer suñu koom-koomu bopp moom suñu réew moom suñu bopp ñun der bu ñun loolu kese la ñuy jooy rien d'autre que ça raisonnement actif na ku nekk réfléchir ci sa don de soi loo mun joxe ci combat bi na ku nekk réfléchir li la fal antisystème bi lim la fal lim la jaral na si ku nekk réfléchir na ku nekk réfléchir si ndax c'est normal li ñu daloon 1960 si Mamadou Dia dal ñu na ku nekk réfléchir ndax li ñu daloon ci Omar Blondé ci Cheikh Anta Diop ci Victor Soumemba Diatta ci Lamine Sané est-ce que loolu daf ñu war dalaat na ku nekk réfléchir est-ce que li ñu daloon ci Thomas sànkara daf ñuy dalaat na ku nekk réfléchir est-ce que li daloon Lumumba war nañu dalaat si nouveau fi ñu toll nii 2023 na ku nekk réfléchir sa bopp yow li nga antan fu cette nouvelle jeunesse ne ku nekk réfléchir li laay waru suuli na ku nekk réfléchiral sa bopp gars concentré wu jël sa conscience y a pas une conscience incapable ça n'existe pas la conscience ne peut pas être incapable la conscience peut douter de ses ressources mais la conscience ne peut pas être incapable développer ça ngir yàlla et descendre sur le terrain luttons luttons ensemble cinq doy te dóor waa ji mu wàcc ku nekk dem la conscience. combat bi fi mu toll nii foog mu yéeg topp presse bi seen wax yi man personnellement mënuma ko duma journaliste xeex moom a andi xeex moom ma andi benn xeex suba nañ leen daje à 13h à l'université si Guy Marius Sagna gars yi nañ leen booloo doon benn suba yéen F24 force vive de la nation grand Bengelloune yéen waa Pastef France yéen ñëpp laa leen wax nañu leen dajaloo demee fees fa jàll kuy ñëw andi drapo Sénégal big kaye këyit bu ñu mën a yónnee dàmbooj pour mu jàppale gars yi dina si baax nit ñu ñëpp jàppale ngir yàlla li laay war suuli nit ñu ñëpp jàppale pour ñu jàppale gars yi xeex suñu xeex jóge fii Bassouma Bassouma Mbaré le combat là se doit d'être gagné pas d'être calculé ni perdu Bassouma Bassouma Mbaré